بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 di ñaan sun borom may ko fan wu gudd lool waa ànd ak wér-gu-yaram ba naal yu mu naalal lislaam ci liggéeyal maam Cheikh Rahima Fall ci toolu Cheikhul Khadim bi suñu borom kattanal ko ba mu àggale ko di jaare mboolem buntu kër yi maam Cheikh Rahima Fall yëpp waaye di jaare nag buntu kër bii nga xam ne ci lañ toog di buntu kër Serigne Mor Talla Fall waaye ñu toog ci kër jëwriñam nag eh, Serigne baare Ndiaye di kenn ci njabootu maam Cheikh Rahima Fall gi waaye di kenn ci Serigne Mor Talla Fall ñu dend ak jëwriñam ji ko fi nekkal di Serigne Mbacke Ndiaye ñu fa yéene ànd ak ñoom rek tey jii di kumte li nga xam ne mooy kumte lu mujj li ci weeru koor wi di fukki fan yu mujj yi ñu ñëw fekk ko fi nag ci ne mu ko baaxoo defee saa yu liggéey bi tàmbulee lépp lu mu dajale mu yóbbu ko kër Serigne Mor Talla Fall ngir ñu di ko togg di ko jox eh, Seyxuna Ahmadul Xadim loolu nag tey jii ci lañ toog ànd ko ak moom waaye ñu feggoo ak rakam eh, di. sëriñ euh, maam Ndiaye mu fas yéene yëkkati ay kaddu rek ci turu euh, sëriñ Mbacke Ndiaye ñun ñëpp ñu maase déglu ko ci seen émission bi nga xam ne moo di ëttu ñu di ko amal dibéer ju jot bu fukki waxtu jotee ci guddi ci seen télévision Lamfal TV seen mbokk taalibe Fallou Galass nekk ci ànd ak waaye fegoo ak alaaji Fallou Syll ci wàllu machine bi kon ñu déglu sëriñ maam Ndiaye mi nga xam ne mooy wax ci turu euh, sëriñ Mbacke Ndiaye xalifa sëriñ Baare Ndiaye kon sëñ bi bisimilah. mbokki ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi di leen siyaare lu bari te di leen balu àq te di leen ko baal di jiital ci nuyoo bi nag sunu kilifa muy sëriñ Muntaxa moom sëñ Tuubaa ñaan su borom yàggal ko fi lool te boole ci ak wér ci cag jëw mu ja sëriñ Amdi Mudu Mbenda mi fi nekk Cheikh Ibra ak njaboot Cheikh Ibra Fall gi ko bokkal ñëpp ginnaaw bu nuyoo ñoom di nuyu sunu bokki taalibe bi yëpp di siyaare sunu kilifa gi nga xam ne moo fi toog toogaay ci buntu kër sëñ Baara bi nekkal fi sëñ Baara nekk fi Cheikh la di ko siyaare di ko ñaan suñu borom yàggal ab taxawaayam te boori ci ak wér sëñ Fall nu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen jaajëfal ci taxawaay rafet yi nga xam ne moom ngeen taxawee ci liggéeyal sëriñ bi leen wax fii ngeen ko fekk ñu ne ko ñu ko fi defee daa mel ne suñu wajur lan fekkoon ñu doon fi joxe liggéey bii di ko jëme ko sëñ Mortala liggéey bi nag eh, sëñ Baara mii nga xam ne moom lañ fi nekkal njaboot gii nga xam ne ñoo féetlu ci wàllu di wàllu ay ci aw jigéen ñooñu waa kër gi sëñ bi lañ ñoom ñii ay doom lañu nga xam ne ñoo ànd ak nun liggéey bi moom mi mooy sunu kilifa nun mu seen seen bokkum taali bi rek moo xam ne ñii suñu sëriñ suñu kilifa lañu ci fànn yëpp ñit di suñuy doomi sëriñ di suñuy sëriñ euh, ginnaaw bu ñu leen ñaanal leen taxawaay bi rafet na lool ndax kër gii nga tàbbi tey jii ko sëñ Baara euh, Cheikh Rafal defal na ko loo xamante ni nii doy na sëkk ci ndam ndax euh, kii nga fekk mu toog ci kaw ak ñii toog benn rek benn toogaay rek la lépp loo xamante ni bëggu sëriñ bi rek mooy ñii ci biti ñëpp mooy seenu bëgg lépp lu mu digre cooco la ñuy nekk lu mu tere ci fekk ci dara ñu dem sonn yàlla kon loolu mat naa sant yàlla bu baax waaye sëriñ Baara nag doon kenn koo xam ne nii euh, Cheikh la daa def ci moom coobare boppam lii nuy wax nag waxuñu ko ci suñu bokk gën ci bokk leen ko wax ngir sante ko Cheikh Ibra rek ndax waxuñu jëfi sëñ Baara jëfi seex Ibra la ñuy wax Cheikh Ibra Fall sëñ Mortaal la bokkal soxna Seynabou Diop mi nga xam ne mooy waajur sëñ Mortaal ak soxna Seynabou Diop mi nga xam ne mooy waajur sañ Baara ñoo bokk wenn waajur wu jigéen euh, soxna Fat Diop yàlla da ko nattoon mu am doom tudde ko sëñ Baara yàlla dogal mu daanu ci ab laax fii ci ndànd nga xam loolu lañ ñu nettali kale bi nga xam ne nag yàlla dogal na mag ñi di ko euh, métti lu bàgg ci seex bi di ko yëg mu wax ne ana lu leen naqari ñu ne ko faal xanaa sunu doom ji muy noppi leen doom ma fay leen ko wax nañ kare bi nga xam ne soxna Seynabou Diop am na gan bi ko Cheikh Ibrahima yëgee daa wax ne cër bi woon ca Mat Lamine Fall warte naag Mat Lamine Ndiaye ñi fi teew ñëpp taxam sañ Baara xamoon nañ ni aw ñaq rek la dëkke woon nga xam ne tàngoor wam daan woon ca laax ba firndee na ko ba ak dundam lépp noonu la ko dunde nga xam ne wax nañ ne benn yoon la mas a yëg ci am péex muy ba mu nekkee ndar rasaatool nga xam ne boobu àgg nañ ci nit ñi dañ leen di séndal ñu door a mën a liggéey moom boobu neen ca la mas a yëg ak péex ngir aw tàngoor kon kooku kon daa mel ni Euh, loolee cheikh bi waxoon ci moom wér na cëng wax nit li nañ ci moom wax ni dafa am benn bis boo xamante ni daa fanaan ci ay sëg nee bi mu fanaan ci yi nee na ñu ñu dikk ko sëñ bi ne ko mat la mii di jaaxal na nit ñi ndax moom ci sëg yi rek fanaan te loolu daa mel matoon naa wax ak moom dara dam ko waaye mu ñëw mu ko man la loolu tax di fanaan ci sëg yi mën ko man de Fall day def su ma tàbbee ci sëg yi dama fi fekk ñoo xam ne dañ leen di mbugal waaye su ma tàbbee ci biir sëg yi nag ñu bàyyi leen loolu moo tax di fanaan ci biir sëg yi mu ne ko man da nga ñëw ma defal lu gën a gaaw loolu da nga ñëw ma dimbale ba sëg yoo tàbbee ñu ñu jéggal leen loolu ko Cheikh Fall dimbale woon euh, njaboot gi nga xam ne dañ fee teew itam damay wax ne nu waxtu ne sunu xel war naa dal sunu yaakaar war naa gën a dolli ko ndax ñu njëkk ànd ak moom kat ci li ñu tuddee ak njëbbal kare bi nga xam ne ànd na ñoo moom daf leen def xam ne moom ruug bopp ngi def koo jaaxal ba tax mënu cee boole kenn daal leen yebal ci waajuram wa muy maam Ibra Ngoone mooy waajuram maa ngi Ibra bind bataaxal boole ko ak njaboot googu yebal leen ci Cheikh Ibra mu fekk ko maa ngi wax nañ ne kala bi nga xam ne jikk nañ njaareem gi Cheikh Ibra mu nuyoon te moom da ko daan sama doom la ko daan wax mu sama doom ji lu mu doon mu ni Fall man de moo ñoom la ma sama waajur woo ak lettre bi jox ma nee naa la ko andil nee na bi nga xam ne Cheikh Ibra depp na lettre ba xool ko ba noppi gis mu bind ca ne ko mët lemin moomu ko ñooñu ko ànd ak ànd ak moom dañ ko bëgg a dénk seen bopp waaye daa wax ne ruug boppam ko jaaxal na ko ba tax mënu cee boole genn ruu mu ne ah doom li sa baay wax yaa ko wax mu ne ko lu mu wax mu ne ko daal wax ñi fere yii nga àndal dañ laa bëgg a dénk seen bopp doom nga xam ne sa ruug bopp bi dafa laa jaaxal ba tax mënoo cee boole kenn mu ne waa Fall loolu de maa ko wax mu ne ko ah doom la ngaa gore rek de waaye yeeg ñëpp a yem daa ni man doo sëñ Bamba mbooloo ma àndal dañ leen di boole dimbali mbaa gàcce feeñ ca waaye doom nangul soo léegi lu ci mën Ibra Fall maa koy def sëñ Baar daanaa wax ni su ma neexee lu ma jox sa ku ma jox sa di lu ma neex def ko ni ndax kenn am amee lu ma kenn dara cheikh daa leen amal waaye cheikh dom ku mu dara nag war nga xam ne la nga am sa sa dana dana jar moo tax ñuy sant yàlla di sant di julli bi di ko gërëm te ko ñaan suñu borom dali ngërëm di ko ñaan itam euh, liggéey bi nga xam ne moom fi bàyyi te amoon pas-pas bi doon ko liggéey cheikh Ibra njaboot gi fi nekk ñu ngi ñaan sama borom kii bopp bopp liggéey bi muy sëriñ bii sama gën ko fa yàggal wala ci ak wér ndax nun ñii fi teew de bari na ci gàññi man li may doon doon ndaw xam naa ci moom ci fii ci Daaru Xuddoos gi rek xam ne fi la sëñ bii liggéeyee tool bi mu daan liggéeyee lu néew néew fukki fas daan lañ ci fi xëy te ñu daan xëy fa lañu daan gont te boobu ñu daan xëy daa fa gont kat teewut daana woote ji aw nit njakkar ma jéey gébbu faal googu ba Kajoor ngir ñu ko dimbali ci liggéey boobu te waxtu ma sa sotti kat liggéey bi la may rëy rëy rëy rëy jébbal ko Seex toog noppi ci moom musa amal boppam dara musa moomal boppam dara lépp lu am Cheikh Ibra Fall moo ko mas moom kon dafa mel ne boo taxawee fii liggéey bii nga fekke nii liggéey bi sëriñ bi yóbbu ci sëñ bi moo gën a kawe liggéey bii moo gën a kawe liggéey bii ndax keroog bi mu jébale ab liggéeyam moom sëñ bii yóbbu na fa fukki nag ak juróom yóbbu na fa ci gàtt lu toll ci juróom ñaar fukki gàtt ak dara yóbbu na fa lu toll ci juróom fukki bidon diwlin ak juróom ñaar yoo xam ne ay 20 la boole ci ndugg moo xamante ni nii mat na un million quelque mat na ko lu bokkut ak ginaar kon daa mel ne taxawaay ba mu taxawee kër sëñ bee lii kat defu ko mu di ab liggéeyam aw yokkaam la aw yokk ci liggéey bi du ab liggéeyam aw yokk la ci liggéey bi te lii nag moom la fas yéene di ko def ba keroog nga xam ne nii sa borom dogal na weer yu feeñ waaye weer yu ñu sa borom wërsëgale nag nu fekke ko te ñaan yàlla nañ ko fekke waat ay déwén ni déwén di ñaan liggéey bi ñu ci liggéey yàlla nag suñu borom yàlla gërëm dañuy wax ne képp koo xam ne yàlla dogal na nga fekke ko te man ca dara te defoo ko ca yaa ngi denc kumpe gu rëy a rëy ndax liggéey bii nuy liggéey sëñ Tuubaa bëggal boppam digal ko Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra digal nu ko bi mu nu ko digalee ba noppi dañu caa dig da koo digle ba digee ca daa di wax ne liggéey bi ma sëñ Bàmbay liggéey loo kat doom ku ma ci defal tànk ma la adduna ak àllaaxira liggéey boo xam bëgg nag digal ko Cheikh Ibra Cheikh Ibra di ko jëf digal nu ko nu fekk kon man ca dara ku ca defu sa dara kumpa rek la jàpp ndax ñëpp a bëgg lu baax nag sëñ bi waaw moo tax ñuy wax ni nu sant yàll sant sëriñ bi di sant njaboot gii nga xam ne noo ànd ak ñoom liggéey bi ndax kat lii nga gis wàllu jigéen ñi rek la liggéey jigéen ñee ndax jigéen ñi kera bi yi feeña ak tey denc ñu seen alal denc ñu seenum xel denc ñu seen doole te barwaa na ko mën a wut sa yëf kat ba noppi waaye liggéey bu sellee nii am ñu mel nii rek la koy may kon nag ñu ngi leen jaajëfal yéen itam ci liggéey bi taxaw bu rëy bii nga xam ne moom ngeen taxawee taxawee ko liggéey sëriñ bi ndax sëriñ bi kat lu baax rek lay bëgg bi mu bëggee lu baax ba noppi te di ko sàkkoo tam taxaw gi ngeen ko taxaw ba li mu ci bëgg mu am ko ci xol sëriñ bi set na ci guy yi yàlla na yàggal taxawaay yi te boole ñu ci ak wér dan teew ko ay diiwaan yu yàgg-yàgg te làq ci ngërëm yi sëriñ bi yu bare bari ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall noo ngi nuyu ñëpp di leen balu xaq nag ndax kat ah, wax ji dafa sëñ dañ ko sëñ te bañ a wax rek ngir ndigal waaye noonu daa mel ne sunu wax sax daa néew na ci waxtaan wi nag waaye noo ngi sant ñëpp di leen gërëm te di leen jaajëfal sëñ bi si la jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëñ Maam Ndiaye euh, jërëjëf euh, mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ak ñun dañu seetaan ci seen télévision Lamp Fall TV yéen a yi nga xam ne bàyyi bàyyi ko ci sëñ maam eh, eh, jëm ci jëm jëmmi sëñ Baara Ndiaye eh, nga dégg li ko maam Cheikh ma Fall Babul mu Mouridina wax bi mu koy jox boppam wala bokk bi ko mbooloo mi joxee seen bopp te doyuñu ko ci boppam mu ànd ak ñoom ñëw ci Cheikh ma Fall lam ko ci tegal mooy da ngaa gore waaye ak ñëpp a yem yaakaar naa ne nag loolu feeñ na ci jataay bi nga xam ne tey jii moo am ginnaaw bu sëriñ bi jëfee ab liggéeyam ba noppi ñu gis nag ñaraas wi nga xam ne jigéen ñi ñoo ko ñaraas yaakaar naa ne ku ko sosoon góor dana ko doy sëkk ab liggéey ci weer rakkantuma nag mu def ko ci benn fan kon liggéeyu maam Cheikh Rahima Fall a ngi nii sëñ Touba ko ko digaloon na ko Ibra Fall damay bëgg a am gan te bëgg ku ma teralal gan ga maam Cheikh Rahima Fall nag fas yéenee mooy di ko toggal loo xamante ne bii ku dem ci kër doo ko fa bàyyi te loolu moo tax sëñ Touba gàttandu woon weeru koor ci xasidaam gu tedd gi nga xam ne moo di yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi yaakaar da ngay jàpp ne sëñ Touba gan lay teeru da demee ba la wax yaa mukrimu dayfi jaaran kaana aw saara loolu day mel ne kon ba tey nit lay teeru waaye ba muy demee ba koy gunge yaasal bu saaraati la waxoon kon maam Cheikh Rahima Fall moo dégg dëgg dëgg ganuk sëñ Touba googu nga xam ne sëñ Touba nee na mosuma gan gu mel ne moom te gan gu mel ne moom duutuma dikkal te it suy dem danaa am wéetaanga yi xol woo xamante ne bii kenn du ko mën a wéetu lu weesu gan googu del si gan googu nag la maam Cheikh Rahima Fall di teral ci fanweeri fan yi di togg ay dab yoo xamante ne bii ku ko jox njabootu sëñ Touba gi danañ xam ne Cheikh Ibrahima Fall mi leen jox ndab yi kat kuy wut ndab yu mel noonu këram te maam Cheikh Rahim Fall mu ne woon góor yàlla dëgg nag su bëggee dabe day joxe ay dab kon yaakaar naa ne lii mooy liggéeyub kër sëñ Baara Ndiaye bàyyi ko ci xalifaam di sëriñ Mbacke Ndiaye yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jaar ci ay rakkam di jëwriñam eh, di sëriñ Maam Ndiaye ak jigéen ñëpp seen mbokk taalibe Fallou Galassi la moo àndoon ak yéen ah. euh, tànk boobu nga xam ne moom la Cheikh bi da waxoon ne kooko ci defoon ñu xett la ci adduna ak alaxira bëkk démb dong xam nga fanweer la yu manqué benn mooy tànk taa be ñeent juróom-ñeent la keef ñaar fukk la mu ñaar fukk ak juróom-ñeent bëkk demb dong jébbali naa ci lu mat fukki junni ak juróom benn jébbali naa ko ci ci fanweer ci fanweer yooyu jébbali naa ko ci ci léegi sëriñ bi waaw eh, jërëjëf jërëjëf kon ñu santaat ko gërëm ko bu baax a baax <clears throat> di leen joxaat eh, rendez-vous ci yeneen i jotaay ci barab bi maam Cheikh Rahima Fall yi ñoo ngi woon kër sëriñ Baara Ndiaye xalifaam di sëriñ Mbacke Ndiaye ñu àndoon ak yéen ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru koor di leen joxaat daje ci beneen jotaay wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله bismillahi finin الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله يا من له الأمر يا من له